soxna may ñu fi ay jarbaatam lañ sant gi njaboot soxna may ñoo koy def ngi sant taalibe yi sant mbokk yi di sant ànd jaamu yi liñ def tey yàlla na yàlla fay kenn ku nekk xam tey soxna May. moom kese yi am na borom dënnu. moom kon nag yal na yàlla lu mën a am nag. mooy joxe cër. yàlla mooy mooy séddale. cër nag bu la ko joxe. cër a sant. kon nag. sant gi tam kon nag Abdou mi nga xam ne mooy doomam bu góor moom ci turam kilifaam la ndax la ko def yàlla moo def soxna may. yàlla moo def soxna may. moom mii. ak di ci des. mooy seen kilifa waaw. yàlla ko def. bu ñu ko defee. yàlla kon yàlla nañ ko jëfe kilifa ku kilifa nag la ko yàlla joxee da nga koy fonk sagoo ko am nañu ko bëgg amuñu ko yàlla ay joxe bu loolu amee dañoo am ko amee am taxawaay ci réew mu am taxawaay ci mi yàlla ay joxe garaat yàlla mooy joxe garaat ndax ku la ma ku ne ma yow mii man mii di sëriñ. di sëtub sëñ Gaawaan. di sëñ Gaawaan. wala Abdou mii di sëtub sëñ Abdou Borom Dër. Abdou mii di sëtub sëñ Abdou Borom Dër bi. bu ko suufantal. bu ko suufantal. bu ko suufantal. bu ko suufantal. du ko neex du ko neex. waaye nag yàlla moo def. yàlla moo def. cër. cër. yàllaa koy joxe. yàllaa koy joxe. ñun waa Mbàkke. ñun waa Mbàkke. dañoo am cër. dañoo am cër. yàllaa ñu ko jox. yàllaa ñu ko jox. muy kàlla baax. ministre lañ am. ministre lañ am. waa Mbàkke ko moom. waa Touba ko moom. waa Touba ko moom. bu ñëwee mu gis ko ya gis ko fii mu xam ne kii nit ku dëgg la nit ku baax la nit ku sincère la laa ko waxoon te kanam soxna may loolu lay seebaat yàlla na yàlla fay li nga bëgg yaa ko xam président mi ne wóolu yàlla bokkul soo da nga xam ne njaboot soxna May sa njaboot la yàllaa la jox cër bi bu déglu kenn bul xool kenn jàppal ngir soxna May boo ko defee mbàkke gi loo fi yëkkati kenn du la retaan Abdou mii de ba ngeen xëccoo seytaane dugg ci yàlla jox la yàlla jox la ko nga xam ne yàlla merewu ci leen yàlla séddale leen ànd leen defar dëkk bi te yàlla tax loolu la ko digal seen saali mii ku baax la ku lay taxaw la foo nekkul mi ngi def rafet mi ngi taxaw rafet man la chef de cabinet yàlla bu la ci yàlla bisimilah Morane Gueye mii man la adjoint maire de yàlla bu la ci yàlla bisimilah premier conseiller Moussa Sakho yàlla bu la ci yàlla bisimilah kon teel nga doomi Mbàkke li mu lay ñaanal képp koo mën a dimbale dimbale ko bu seet Abdoulaye Andal wala Dala Compte. yëkkatee ne la bu ko tijjatee nag yéen a xam nag fu ngeen jaar fii ngeen toll dimbali leen waa Mbàkke xale bu yar la bu la neexoon nga daal sama jarbaat la doon faale faale yow te yëngu woon yëngu woon yàlla na yàlla fay yàlla Macky Sall am ndam ci yow jërëjëf. ñu ñàkk suñu yaay ñàkk suñu sëriñ. lakin ni ku baax bu dal ku yemale ñëpp soxna may soxna may bu si abdu yàlla euh, borom dër bi euh, loolu nag waa Mbàkke yi ñoom ñoo ñàkk ñàkk nañ ay kilifa yu baax ñàkk nañ tamit ay ay régulateurs sociaux ndax it lu mos a xewit tamit ci dëkk bi ñoom tamit seen taxawaay dafa rafetoon euh, surtout soxna may xam dañoo jàppoon comme comme comme doomam jàpp yi jàpp yi tamit comme taalib Euh, ñu ngi jaale bu baax baax waa Mbacké di jaale également particulièrement le maire Abdou Mbacké Ndao euh, suba ba léegi ñu ngi fi ñu bokk moom bis bi ndax bis waa Mbacké yëpp la ñoo ko ñoo ko ñoo ñoo ñoom la métti kon ñu koy ñu ngi ñu ngi jaale waa Mbacké di leen di jaan yàlla yàlla xare ko yàlla gisal ko gisalee ko euh, maamam sa Cheikh Khadim gisal gisal ko tamit ak ak waajuram ak yàlla borom doon gën bi sànq rek bisu bisu tiis la waaye tamit bisu sant sant yàlla bu baax ndaxte yàlla tamit lu mu teg ab julit teg bu taalibi da ko war a nangu ba pare rafetlu moo taxit lu mel ni it na ci xol waaye tamit dañ koy bu baax baax euh, wéttal la ci dëkk bi wéttal la woon tamit ci ci askan ndax it bi euh, keppaaram bi keppaaru jànkas la woon keppaaru faj soxla woon ak faj ak faj aajo waaye nag seen tuwaajur fi kon moo taxit ma jàpp ne tamit euh, li am solo mooy taxaw bi askan taxaw ci bis bi euh, mooy wane tamit dayoom ci ci ci dëkk bi waaye tamit dayoom ci ci réew